Bismillah mu sëñ Ahmed Iyane Sy ca Saint-Louis pratiquement presque toute sa carrière ci foofu la ko defee alors mu nekkoon nit ko xam ni nit ku baax la ci ci jàngale ca la commencé woon ca kër ga ci kër sëñ Ahmed Iyane ah, wax dëgg tur njabootu sëriñ Ahmed Iyane Sy ñu koy ñaanal yal na ko yàlla xar àjjana tabbal ko ci àjjana fir fir daw si loolu ci sama témoignage sax loolu laa ci mën mënoon wax waaw rafet na ci moom bu muy koo xam ne également dafa am une particularité dafa bokk ci premier étudiant yi nekkoon euh, au Maroc euh, nga xam ne ñu ngi euh, jàng li ñu naan religion musulmane donc loolu tamit lu am solo la xam ne la tey jii euh, macha allah tax na mu bàyyi fii euh, lu lu jëm bu rafet donc koo xam ne la Sénégal moo ko ñàkk Afrique moo ko ñàkk waaye réew réew àdduna bi yëpp ñoo ko ñàkk tey jii waaw mais période bi ñu nekk di dajaloo bi dañ koy mais lii dafa mënta ñàkk parce que kii nga xam ne moo fi jógee islamique ñëpp lislaam rawatin na nag ci àdduna moo tax mun ñu foon na bañ a ñàkk ñëw teewal fi président de la république teewal fi njaboot gi yëpp mais dafa mënul ñàkk moo tax ñu def ko euh, yàlla na ko yàlla xare àjjana te nun ñu fi des yàlla may ñu lii mu am ñu am ko ndax nekkoon na ku puso boo xam ne ni dafay ñaw ci yoonu euh, lislaam nekkoon na nit koo xam ne nii lislaam moo ko ñoroon man de fii mu ñu ko jullee tey woo na ma ma fekk ko fi bu dul benn du ñaar ci bis boo xam ne nii bisul islaam la kon yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla sàmmal njabootam gi mu fi bàyyi tegal ko ci loxoom nun ñu fi desit yàlla na nu yàlla may xolu muñ yàlla na nu yàlla jàppale ba nga xam ne nii fépp foo xam ne nii moom daana fa taxaw ñu mën ko fa taxawal su saa yi suñu xel demee ci moom it ñu ñaanal ko yàlla xare ko àjjana jërë ngeen jëf wax ji mënul gudd. perte pour la république. c'est une perte une perte énorme pour la république.